Gambia's president, Adama Barrow, is currently on the way from his native village, Mankamankunda, in the Upper River region, some 350 kilometers from the country's capital, Banjul. Well, President Barrow departed Banjul in the early hours of Friday for URR where he spent the first weekend following the easing of the COVID-19 emergency restriction, which saw the reopening of places of worship. Now, the district is said to be the first time the Gambian leader left uh, State House uh, since the outbreak of the COVID-19 pandemic in the country some two months ago. Well, during this weekend, the president decided to keep his engagement at a low profile without any public engagement. His office has announced prior to the visit that the public was excused from the usual welcoming ceremonies with aim uh, to accord the president a rare situation of private life, um, thanks to the COVID-19 emergency restriction in both February and March, Barrow had visited his region during which he inaugurated some development project undertaking uh, his um, administration. yes uh, there you go mu ngi noonu moom jiiti réew mi président Barrow uh, weekend bi kon ni ma ko waxee base la ko defee Mankamantunda ci dëkkam li nag mu nekk njëlbéenu yoon muy génn State House di dem feneen ci biir réew mi Euh, gannaaw bi nga xamante ne ne euh, amoon na gan bu nuyoo si ci réew mi mu nekk gan bi nga xamante ne moom euh, ku ku ku kuy dem feneen lay aaye jaxasoo bi ak yooyu mooy Covid 19 bi coronavirus wala mbas mi waaye weekend bi gannaaw bu ñu wàññee li nga xamante ne mooy yenn ci. dogal yu nguur gi jëloon moom tamit mu profito ci génn dem ci fi nga xamante ne mooy ci dëkkam foofu la defee weekend bi mu war a dellu ci nag tey monde pour continuer li nga xamante ne mooy liggéey bi nga xamante ne réew mi dañ ko ko sas waaw jërëjëf Amadou comme nu ko nu mu la waree. nga war koo def war may rek war ma noonu la ko waree ni ku nekk soo amee tay war nga mën a dem fi nga jógee lifin fi kon nag li si problème mooy si mbir muñ nekka den oyofal rek gis mu dem xel yi mun neen jàpp ne ndax du yoonam moo tax mu oyofal wala si si loi bi la sukkandiku ba léegi because comme noo ko waxee ñaar bi dugg ñetti weer si gannaaw kenn gisul mu génne si State kanaa ba mu génnee Makati Square la ñëw def benn euh, speech delluwaat foofu noonu den euh, askan bi tam ñu bari ñu ngay wax Barrow dafa bëggoon a dem dëkkam moo tax mu indi oyofal bi bu jox na ko opportunité ba mu dem. Mm-hmm. wala tam situation bi moo si toll. loolu yëpp dañoo dafa des si xalaati askan bi ak nu ñu ko gisee ak moom moom lu ko tax a jóg nit ñi xam nañ ko waaye foog nit ñi ñoom euh, jàng def seen jàngat def seen analyse xool lan moo tax moom mu daal di mu doxalee nii. but anyway nit ñi tam amee nañ si freedom tuuti si mbir yi. ñoom itam dem lijjanti seen i soxla si jaaykat yi si ñeneen ak ñeneen am na rek yeneen bunta yi des yoo xam ne ni euh, nit ñaa ngi ko doon xaar comme ñu nekk si ob bi rek seen luuma yeeg yooyu noonu itam askan wi ñu ngi waa foofu sax ñu si bëri am nañu gis am nañu si gisante ñu ngi wane na si boole tam ñooñu pour ñooñu itam mun a gis seen bopp si lifin bi waaye anyway euh, tàccu beeg soo ko gisee ak mbooloo mi nu mu fa menoon foog bu àndu doon ak lu mu génnee ni du doon mun a possible kon ñi nga xam ne seen xel mu ngi xalaat ndax du yoonam bi moo tax ñooñu am nañ fuñ ko bloqué ñi nga xam ne tam ñi ngay wax ne situation bi moo fa toll ñoom te am nañ fuñ ko bloqué kon li si des daal mooy bàyyi ñeneen ñi ak seen jàngat ak. waaw ku ne ak noo ko gisee. parce que waaw gis-gis yi moom foog foog muy uute rek. ci lu mu mënta xew ci jamono ji surtout nag moom jiwi réew bi si doxalinam euh, su ko defee loolu tamit euh, euh, leneen la su ko loolu tamit Mariam yow noo ko gisee président Barrow jamono ji génn na day nga mool ñan nu mu ko indee ñu bari am na ñu nga wax ne xëy na boo gisee ñu wàññi moom dafa bëggoon a dem ak yu mel noonu waaye tamit xëy na situation bi moo ko laaj. weekend bi tamit waroon naa dem gisi ak euh, yaay bi am ña xam ne euh, maire bi foofu la nekk. Euh, mu dem nemmeeku tamit you know yaayam ak yu mel noonu xëj na tamit moo dem mu fiil na dem. ci weekend bi defee ko foofu. yow yow naka nga jàngatee si mbir mi. waaw Amadou askan bi tam lu gaay war a xam mooy président bi despite président la waaye moom tam nit la. Mm-hmm. dafa amaat beneen famille. and um, coronavirus bu dooree ñëpp la ñëpp la lifin ñëpp la jàppa daal waaw soo ñim jàppa ñeneen ñi mooy askan bi ñoo ñëpp ku nekk yaa ngi toog ak sa famille yaa ngi gis sa yaay yaa ngi dem ak a ñëw sa mbokk yi ñëpp a ngi toog waaye moom mi ngi woon state house so su waree def comme suñu easee this restriction ñu war a mu war jël at least a time out mu ne xaaral ma dem suma dëkka ma dem rest tuuti at least benn Friday Saturday Sunday am fooguma ne askan bi war nañ koo mun a jëlee leneen because su du dara sax moom tamit nit la te dafa am family am na leneen ak leneen so um, man damaa wax ne it's a good move because dafa dem soo demee xam nga weekend soo ko amee da ngaa refresh your mind nga mun a start work fresh on Monday den mun na mun naa am sa ni nga demee toog sa family bi gars mun nañ laay yokkal yeneen xalaat yu nga xam ne di xam sa naka nga gën demee ak fooy teg sa tànk ah, ok euh, loolu la parce que tamit yëf yi moom Euh, ni nga ko waxee rek ne xëy na tamit comme euh, yow ni nga koy waxee nii ak tamit ñeneen ñi duñ euh, koy gisee léegi ko léegi moom foog foog rek mu utee waaye moom mu dem ci ci ci ci fu mu jógee ci weekend bi ak yooyu xanaa kay nu mbir mi nu moo demee xëy na. Covid 19 doomi Adama moo neexut a satisfy. non waaw waay mën a satisfy am loo munti def def il faut mu am ku nga xam ne mu ngi wax ne defal loo ko dara. askan bi def jàngat bi rek mooy ne rek you ñu bëri bëggoon dem seen famille mënuñoo dem. waaw bu ko am na mbas mu fi ñëw. so mbas mi nag jeexagut fii ba léegi yaa ngi tënkoon nit ñi. suñu gisee nga tinki nit ñi yow nga dem dañoo wax ne yow. yow yaa bëggoon a dem waaye biir Gambie fii kenn du a wane suma famille li mu ngi opariva wala li fi man maa ngi kombo man mun ma koo seeti. biir Gambie moom mouvement mu ngi fi am. xëy na ñi nekk si biti ñoo mënut a ñëw parce que rule si àdduna bi la nekkut ne ñun de te feebar bi dafa nekk lu nga xam ne toog la te ñun Gambie gis nañ ne recent cases yëpp import importation la nekkul lu nga xam ne fii lañ ko amee dañ nekk di import these cases soo ñu nga xam ne dañ nekk si biti ñooñu dañ war a muñalante ak nit ñi rek ba this coronavirus mu ease waaw waaye within the Gambia am um, movement mu ngi fi over am ñu ngee demalante ñu ngee ñëwalante te gis naa ne comme ñu nga xam ne ñu ngi koomu gaa ñu ngee dem base nit ñaa ngee dem julli ji julli bu passé nit ñi sax nit ñi dem nañ julli fii kenn mënut a wax ne man biir Gambie dañ ma restrict ne mënu bu ma dem si dëkk bi wala bu ma dem dëkk bi leneen so the thing is um, ñi nekk outside ñu nga xam ne nag affaire bi métti naa ñoom nagaay muñ rek fu mu nekk muñ a fi des fii yëpp a jeex muñ rek a des so nañ muñalante rek am um, président Barrow nag dégg la am um, nit ñi xam nga dañ dee wax ne président bi tamit nit ñi dañ xam ne nit la su nekkee président ak ak président uh, lu mu munti doon Gambian président head of the country head la xam naka state yëpp he is the so nañ allow the guy rek at least benn weekend ah, naka la the coronavirus has been eased so Gambia ñun suñ cases yi it is import imported cases so nañ nañ nañ nañ muñalante ak président bi rek. so corona bi dafa jee. Gambia daal imported cases laa fi. non dama la laajte rek dafa jee. de. Gambia imported cases la jee social distance mu fa. dama la ne Gambia imported cases la. non non gis nañ ko si vidéo yi. loolu la la nekk di wax doo fi mun a nekk très social distance. nga toog bi bugg dem seeti sa dëkk génne yu bari. demaat nit ñi di la tàcc dajaloo bi nekk fa my friend. moom wax na nit ñi buñ dem nit ñi ñoo génne dégloo si report bi ne dañ wax nit ñi ne buñ génne. loolu mënut a nekk président fu muy génne sa dëkk loolu bàyyi fos may nit ñi seeti la waaw waaye nit ñi ñoo def loolu seen seen boobu président bu moo génne statement bi ne bu kenn génne Amadou. ba ñu eh, la mooy ne la bëgg when you a statement if that that's don't bring débat déedéet yow kay yaa fi bëgg a indi mm, débat ah ñàkk yow da nga am na doo ko dee gis te doo ko dee nangu mm. moom joxe na statement ne bu kenn génne because of this coronavirus nit ñi ñoo génn seen génne nag bul don't blame it on the president you cannot just put pinpoint ah, people on wow, something that they haven't done. Nit ñi ñoo génne it is their own wish ñu génne because the president is coming but he issued a statement that no one should come out. loolu mënul nekk may ah déedéet. ok déedéet. loolu mënul nekk waaw léegi léegi yéen tamit.